Ihi ci mbokam ma cheikh choro mbake cheikh choro mbake suma fi laylati sabti top ci guddi gaawu ga sara la rañaan min hindi yi bàyyi koo fa wa marra te mu rombu bi daari cheikh julo sise ci keur cheikh julo siise tuma ila daari muridihi top nak jëm ci keur talibem ba سرين شيرلو ضحوتا يوم الاحد تي يور يورو بشوب دبير في نوسي تي سان ومكثت مسخ عنده فموم رمضان وير رمضان كله لكم يستريح دي نوبلو ويصوم تمي وور ني تالف كات بي وخه دال موم سيغ بي فوكي فالا جروم لا tombeek barax lu wa jeex bis ba jëkk ci ramadan fekk mi bisub talaata la sëñ bi bàyyikoo ndar wut luga ba mu ñëwee luga mu dalak ak sëñ cheikh coro mi nga xam ne ñoo bokk benn waajur wu góor muy mamor sali nekk na foofa ci luga nag talaata jëm fa ñëwee àllarba alxames ajjuma ba ci guddi la farañaane jall kër taalibeem bee ñi wax cheikh julo cissé dana rek mu jaari kër cheikh julo cissé waxul waxtu fa aksi ak waxtu fa joggé waye mom dal mi ngi rañaane guddi gaawu Louga jaar fi kër cheikh julo cissé mi ngi aksi sànn nak yor yoru dibeer dana rek mu jaari kër Cheikh Julo Cissé waxul waxtu fa aksi ak waxtu fa joggé waye mom dal mi ngi rañané guddi gaawu nuga jaar si kër Cheikh Julo Cissé mi ngi aksi sann nak yor yoru dibeer ja li ñëwee sànn nag fekk fa talibem bu baax boobee nga xam ne moom la ñuy wax sëñ Chirelo moom sax bi mu génnee àdduna sëñ Mbàkke Buso marsiyaal na ko marsiya bu yéeme bi sëñ bi ñëwee kër sëñ Siré ca sànn yoor yooru bisu dibéer te boo talaata benn fan ci weeru koor wa àllarba alxames ajuma gaaw dibéer dibéer mooy juróom-benneelu fan ca weeru koor wa la sëñ bi ñëw foofu ci sànn foofa la toog nag ba weeru koor wi jeex ba mu wari door faa bàyyi ko nag wa fii haadihi lmuddati ci bile diir tasaaxama duuxante na maanaam raj raj loona àllyi ci kawam annaasu nit ña fawqal fawqal aadati ci lu kawe aada maa bay na mutaalliqin la nekk diggante aji jàppndu aaxisin koy aji japp minhu ci mom tariqatahu yonam wa wa bayna mustarfidin ak digante aji sakku ab manam digante aji sakku ndimbal dal yastaqdihi kok dana ko sakko fajlo hawaijahu ay soxlam wa bayna ajilla ak digante ay kilifa yu mag yazurunahu ñoñ dana ko siaré wa yuhanni'unahu tañ koy bi sëñ bi wooree nag foofee ca sànna fa kër sëriñ siraloo dir boobu ca la ko mbooloo mu baree bari fekk si te wute lu leen andi am na ci ñu ñëw bëgg a ci moom bokk ci yoonam wi am ñu ñëw jaaxle bëgg ku leen fajal seeni soxla am nag kilifa yu màgg yoo xam ne moom dañu ñëw rek ngir siyaare ko ak ndokkeel ko wa min jumlatihim bokk na ci mbooloo seen ojoobatu zamaani kiimtaanu jamono wa shaahirul awaani tey waykatu jamono ja a cheikhu ibrahim Diop te mooy cheikh ibrahim Diop al mashhar yu koy ko jóg mashhar wa qissatuhu te qisaam ba xajibatun aji yéemu la wa وظهر تفين فيها تمام لشيخ نيل سرنبي كشفون أوين ما نام أكمل سكرة حجيب جوج أجيوم وذلك لولا أن الشيخ إبراهيم نك شيخ إبراهيم جوب ركبه ورون نكو ورون نتكاوم دين بر عظيم بأجري في زمن تجمنو حصر تجفنا قضاؤه فيمقه فيه تمام fa ajasahu te mu lottal ko wa jaala te mu wandeelu baynal ajilla i diggante kilifa yu màgg yi minal mashayix yi ci sëriñ si falam yaquzoo te jàppuñu bi yadihi ci loxoom wa baqiya te mu des mabhuutan mbir mu muy ku ñu gëlëmal mbax muuman ku ñu jàqal ilaa an wasala jëm si ba agsi a cheikhu sëriñ bi ilaa sànnoo si jëm sànna قديم ديكنا عليه موم ومعه تفك ما عندك موم أبيات أي بيت ذكر يو خامني تولنا فيها تي نيوم أمر الدين بروم بربا وكيف قسمه أنك مكسر دلي على النبي كيان انتبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه أكتئي خليفة مع أي خلفاء وم الأربحات يديانت حين يأس تي وقتو مناغو من إغازة الأجل لأي تي خطلك كلفة يماغي إياهموم نينا سن إبراهيم جوب مشر بوكنا تي يفكن سن بسان تي جامنو سن إبراهيم جوب نك كو يالا مايان لا تي خم خمو làmmiñu arab mën a way lool ba yéeme lool moom daal kiimtaanu jamono la woon moom nag bi mu ñëwee ci sëñ bi mbir mu yéeme yéeme da caa feeñ ndax yàlla da caa xamal sëñ bi secret boo xam ne daal na ko sëñ bi feeñale boo ko dégloo dana yéeme lool lool ndax sëñ Ibrahima Diop dafa gàddu woon bor bu diis lool ci yooyu jamono mënta fexe fexe rekk ba fay ko wër na sëriñ si ku ne mu dem fa bëgg ko ci dimbali ba tey rekk taxul mbir ma sotti mu jaaxle lool bor ba daamatan juróomi téeméeri dërëm te xam nga yooyu jamono juróomi téeméer yombut ba mu ca jaaxlee nag fu ne mu dem fa te mënta fexe ba fay ko daa mujj way ay bayit yu mat juróom benn jël juróomi téeméeri yi ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñi ko wutu gannaawam mi bakar ak omar ak usman ak ali yonante tibet ñeent ñooñu juróom lay doon mu yalwaan ci yàlla nag yàlla fayal ko juróomi téeméer yi téeméer bee ci barkeb yonante bi téeméer bee ci barkeb bakar bee ci barkeb omar bee ci barkeb usman bee ci barkeb ali mu daal di ñëw nag fekk sëñ bi foofu ci sànn indaale bayit yi bëgg na waxtaan ak sëñ bi moom ba xam sëñ bi dana ko ci mën a dimbaleem déet wala masta dana ba mu diisoo xala cheikh ci sëriñ ba addina digal na laxoo ñeel ko fa ataa te mu dikk wa sallama te mu nuyoo wa qabla an yasgura njëkk muy tudd rekk xaalaxoo mbiram ma ودينه أكبرم وكيف قسمه أنك القصيدة في الأبيات تبيدي قال وخنا له ونيالكو الشيخ سرينب يكو ايتني ديكيما ما نب أنجلما بذلك الحفاظ تبوبة كمبكاي ملن بوبة مبوس فأتاتي مدكي له ونيالكو بيه تموم ثم بثاني توب مونيكو أنجلما بوسم نيار المير فأتاتي مدكي بيه تموم فقالت واخنا وانيالكو الشيخ سرين بي احسب وانيال ما لغا خمني في الكل نك نك مبوش مني حلا حيدة تي اكبرو ففعل تمو دف وكان فكنا نكون في كل واحد تي بين مبوش بني ثلاث مئة نت تيمير والمجموع تكون لك بوك بولي ست مئة جرومباني تيمير ليرون فقالت وخ له نيالكو الشيخ سرين بي يكو ينصل برل من حاجي نيوم مئة تيمير واتيني تنغ اندل ما بحاجي موم ففحلت مدف ثم قال توب موخ له نيالكو يكو اجماع بوليل القسمين نياري خاجنا ففحلت مدف فقال موخ له نيالكو يكو استحن سيبو دمبنكو بهذا جلي على مصالحك جسي maslaa muy say soxla wakaana fekk na nekkoon na day nuxoo borom ba xam sami atin di juróomi téeméer fa axasahoo te jàpp ko alxaalu xaal min kashfi sayxi ci kasfu bi yàlla defal sëriñ bi wa saaxate mu yooxu say xatan ak yooxu xawimatan buy aji rëy fa qaalate wax la xoo ko a cheikhu sëriñ bi ne ko maa baalu ka ana mbirwaay faxakaa te mu nettali xale ci moom te mu toftale la wañeel ko bi sëñ Ibrahim Diop Masar ñëwee ci sëriñ bi fekk ko sànn dafa yëg lu bëgg a jàll si sëñ bi ne bismillah na jàll si naka mu jàll si nuyoo laata muy wax dara dara dara ci mbirum bor bi nga xam ne moko andi señ bi ne ko ibrahima jox ma mbuus mee mu daal koy andi señ bi ne ko andi waatal mbuus mee mu yaari mbuus mu andi ko señ bi ne ko mbuus mu ci nekk wàññil ba xam ñaataa ci nekk mu daal di wàññi la nekk ca mbuus mee muy ñetti téeméer mu wàññiwaat la nekk ca mbuus mee muy ñetti téeméer xam nga ne kon seen boole juróom benn téeméer la seetlu nga ne sëñ bi ko booleel yaari mbuus yi yépp waññi dane ko wàññil menn mbuus mu ne ber ko la ca nekk far nag menn mbuus mu ne ñetti téeméer nekk ca kon buñ ko boolee ndegam yaari mbuus la kon juróom benn téeméer lépp moom la sëñ bi ne ko andi ci nag benn téeméer rek jox ma sëñ Ibrahima jóob daal di benn téeméer jox sëriñ bi sëñ bi ne ko booleel nag li ci des dimba nikoo ko ci say soxla te xam nga ne juróom benn téeméer moom bu ca benn téeméer jógee juróomi téeméer a cay des te sëñ Ibrahima Diop bor bi ko jaaxaloon juróomi téeméer la woon moo tax fi saasa xaal da koo jàpp ci ni yàlla wane sëñ bi mbir mi ak ni mu ko lijjante mu daanu yuuxu ca kaw li kaw sëñ bi ne ko waaw lu mu doon mu daal koy nettali nag mbir mi na mu demee wax ko itam bayit ya nga xam ne moom la waxan mu juróom benn di ci tudd bor bi ak na mu ko séddalee gaa yu baax yooyee nga dégg nag ñu waxal la bay yi mi ngi nii fa alayya war na ma addu yunu ixwatin bori ay mbokk xasamtuhaa yoo xam ne seddale naa leen baynal kiraami diggante way tedd ña la xal la añ yaqdoohaa xëy na lee ñu fay ko xëy na lee ñu fay bor yooyu fa alayka war na la yaa muxtaaru yow ku ñu tànn ki awalu xismatin aji njëkki ab cër waxalayka war na la yaa xanaa yow sunu dëggalkat bi te mooy abubakar taaniha aji ñaareeli cër ba waxalayka war na la yaa faaruuqu yow teqalikatu dëgg ak fen te mooy omar taalisu xismatin aji ñetteeli ab cër waxalayka te war la yaa usmaana naa yow sunu usmaan mi taaliha aji toppam ja waxalayka war na la yaa laysal kataa ibi yow gaynde xare ya yaa laysal kataa ibi yow gaynde xare ya yaa abal xasanayni yow bàyyub xasan ak xuseynu nuuray diini naa ña yaari leeri sunu diine war na la baaqiha aji desi cër ya antum yéen kiraamun way tedd ngeen laa yaloobu du wéeru bi jaaxikum ci seen daraja shaakin nawaa bi aji jàmbat xew-xew ya falsanaate mu dellu shaaki haadi aji jàmbat leen faxalaykumoo yàlla doole nekk ci yéen azka salaatillaahi gën jaa selli tereel yàlla maa qad qadaa li fekk faj na bikum ci seen daraja hawaij soxla ya qadiha aji faj seen dane man day gaduna ay bor yo xamne dama ko amel ay mbokk bor yi jaaxal ma lol waye nak mang koy séddale gaa yu baax ndax ñu fayal mako daldi ne yow ko ñu tan ki mu yonent bi yow day yow la fetele xaj bu bi xaaju ñaareel bi mu féetale ko Aboubacar xaaju ñetteel bi Omar xaaju ñeenteel Ousmane xaaju juróomeel al imaamu Ali daal dina yéen nag da di gaa yu baax yoo xam ne ku làqatu ci seen daraja rekk te fekk mu am lu ko jaaxal mu di ko jàmbar rek faaw yàlla daldi faj faj aaju fa saasa mu ñaanal leen yàlla saxalal leen gën ci teraanga li fek mi ngi faje aajo yi ci seen daraja fataha jaba te yemu a sheikh serigne ba katiran lol wa hamida te mu sant allah yalla naka mu wax na juroom benn bayit yi sëñ bi yemu lol delu santat yalla mom sëriñ bi sëñ bi yemu lol delu santat yalla mom bi fan daraja te taxañu hum ànd ak ñoom way añaan ña walam yum xilhum te muñalu leen xasaduhum seen kañaan an yamtaziroo ci ñu neggandiku sey di dikku sang bi ilaa daar yi jëm ca këram ga bal li fi nekk charahon tàmbali nañu yu xasiloona di amal tam xiidaatin ay laytaayal li ma li nga xam ne sa yàqaxu xasat naa xew minhum bàyyi ko ci ñoom baax du ca gannaaw ba minat tahriik ci ak yëngal xindama aayonoo ba ñu jàkkaarloog dawaax ya taxariiki sababi yëngal ga xindahum fa ñoom nee bi sëñ bi ñibbisee noonu te mbooloo mi fàq wutsi ko ña nga xam ne ñoo di ña ko daa añaane te yàqoon digganteem ak tubaab yi démb dañoo daldi am lu leen naqari ñu tàmbaliwaat nag di waaj di seet ba xam nu ñuy def ba yàqaat digganteem ak tubaab yi xaaruñu sax ba sëñ bi àgg këram waaye fi saasa saasa lañu daal tàmbali seen pexe yooyule tàmbali gël rek nag ndax bëgg rek ñibbisiim gi mu bañ fee yàgg tubaab yi dellu génneeti ko taxaw temm ci def ay pexe rek yi loolu amee walam ma salla ba mu jullee alxiida xiit yawmal fitri te bisub ko te balay wax wa kana fek na nekkon na yawmal khamis di bisu alxames makka sa saxna mom moom sëriñ bi yawmal jumuhati bisub ajjuma ba wa sabti ak bisub gawo ba ilal xasri ba takkusaan su martaxala top mu doora laxas wa marra te mu rombu bi daril muridi ci kër ba mag jaw te moy mag jaw jamaxa boole na baynal maxrib bi diggante timis wal xisaay ak xonaalika foofee li jiddi sayri ngir taruk dox ba ngir taruk dox ba su ma daa topp mu wéy ilaa makkata sàmba baabu jëm makkak sàmba baabu woo baata te mu fanaan su ma ba takkara topp mu jëlu yowmal ahadi ci bisub dibeer ba ilaa daari xammihi jëm ci kër bayam bu ndaw ba al cheikh ibrahim te moy cheikh ibra bi mbaki kajor ci mbaki kajor fu martahala top mu laxas hasra yawmil isnaini takusaanu bisu altene ila masamba xari job jëm ci seigne masamba xari job bi keur matar da fek ma nga won keur matar wa bata te mu fanan su ma topp mu yendu su martaxala topp mu laxas xasiyata tulaasaay ngoonuk bisub talaata ilaa muxtaar mareema silla jëm ci sëñ muxtaar mareema silla bi ñaxal ci ñaxal wa makasate mu sax ay yaaman ay fan su martaxala topp mu laxasaat ilaa muxtaar sàmba jóob jëm ci sëñ mataar sàmba jóob wala ila muhtar samba job ko ki guy suma qala toog mu yendu walam yabit te fananut bal li fi nek irtahala la khasna xubaylal xoroo ci ndek soxug jant waxum te mbir mom ñoom yu hayyi danañu wajal al athimata ñam ya. walam yat xamu ñu lek tu mu dox hatta wasala ba mu ag ila daarihi jëm ci këram ga daari salaam laylatul arbuxaay ci guddik àllarba naxwa ihda lu tolloog benn waxi si nag ñaar fukk wa te nekk na ci daaru salaam boba axooxu mbokkam ma sidil muhtar sidil muxtaar fi asna ay shawaalin ci biir korite xaasa wile kon nag nga fàttaliku ne sëñ bi digeer jëm ñëwé won sànn ci kër seen siréloo moo doonoon juróom benneelu fan ca weeru koor wa nee nag fi la sëñ ba koriga di bisub alxames kon woor nañu fanweer ca at mooma ndax bu umee talaata wari alxames moom woor nañu fanweer bi sëñ bi jullee nag julli korite ga foofee ca sànn mais bisu alxames toogaat na fa ajjuma ja nekk fa ci gaawu booba takkusaan takkusaani gaaw boobee nag nga xam ne mooy ñetteelu fan ci weeru korite ba la sëñ bi bàyyi ko sànn jaar si kër góor mag jaw ba agsee kër góor mag jaw fa la boole timis ak gee boole ga mooy julli timis fi saasa teg ca gee fa saasa ni ko yoon mayee ci kuy tukki noonu la ko sëñ bi defee foofa foofu di kër góor mag jaw moom dafa jullee timis ak gee rek daldi wéy makka sàmba baabu makka sàmba baabu nag foofa la fanaan ba mu xëyee di dibéer nag mu daal fay teel a xëyee wuti mbàkki kajoor kon di dibéer joojee moy nek ñentelu fan ci wéru korite wa ci le señ bi ñew mbàkki kajoor bi ñewé ñëwee mbàkki di dibéer joju nek na fa ba takusani altene ja nga xamni moy juroom juróomeelu fan mu dal di dem nak kër mataar fekki fa ku ñu wax masamba xari jóob bi ñëwee kër mataar nag ci altine jooju moom dafa fanaan yend fa bi mu fanaanee yendu kër mataar ci ngoon nga la gont nag di bisub talaata wéy ñaxal ci kër sëñ mataar mareema silla foofee nag di kër sëñ mataar mareema silla ci ñaxal moom am fay fan taxul nag mu wàññi fan yee ñaata la foofa la bàyyi ko nag ci ñaxal ñëw kokki guy kër sëñ Matar Samba Diop bi mu ñëwee kokki guy dafa yendu waaye jotuta fanaan ba muy dem nag booba timis jege na lool fekk na sax ñu waajal ay reer bëgga ñu reer door dem waaye jotuñoo reer ndax sëñ bi ba jant bi bëgg a la bàyyi ko kokki guy naka mu ko ki guy nak dal di wut si rek daru salam daru salam gi nga xamne ne sancion te wëlbati ko woon rafaatele ko maam Cheikh Anta guddigal accès daru salam guddig guddi àllarba la war ñaar fukki fan ak ben ci wéru korité wowe wattafiqa ti tambali al akhu mbokuma teral bima ci lo xamne ne taqata dit bi ci moom di xëyri ñeel ku moom min jumlati ashaabi cheikhi ci mboolem àndaale sëriñ bi almutixiina ña di way àttan mooy ña di way man fadlan rawante na xan an yutiqahu walis mu di ko àttan xayruhum ku dul ñoom wa makasate mu sax mu data xashrati ayaamin diiru fukki fan yow nañ ci bépp bis yadbahuuna rendi asharatun fukk min atiraani ci ay yëkk fa in lam ma nde matut alxadadu limba tummima kon mottaleef ko bi jambalin ci genn gëleem aw jimaalin wala ay gëleem xas ba ma kem la nga xam naq sa manki na waxum te mbir ñoom yu hayi oona ña ngay waajal la hoññal ko manaasi la ay kër Hindal axi fa mbokk ma a cheikh ibrahim fati bayna daari Salam diggante daru salam wa tuuba ak tuuba samaahu tudde na ko a cheikhu sëriñ bi daaral mannaan suma taqaddama topp mu jiitu may topp mu dikk rek ilayha jëm ci daarul mannaan googu fii awaili dil qidati ci njëlbeeni weeru diggiw tabaski bi sëriñ bi fa cheikh na ko maam Cheikh Anta ganalee yéeme ne lool moom mi taarif sax nee na yaakaar na ne moom rek ko man ndax sëñ bi am na fa fukki fan yoo xam ne bi bis bu ne danañu reen di fukki xàbbon bu fekkee ne daanara manki ñu mottalee ko gëléem nga xam ne lu fukki yi nara manki rek gëléem lañ koy motulee Dafek fekk booba nak maam Thierno mom nek fofé ci darul manan moy gefa Touba fofu la maam Thierno nekkoon ñu faron defaral nak sëriñ bi ay kër yo xamné su bayiko ko ci daru salam fa wara ñew nek fa sëñ bi sax mo tudde fofé darul manan. bi sëñ bi ci fofu ci darul manan nak du njel benu di diggiw tabaski wa ndax neena la alal ba ji señ bi won daru salam mo do non ñaar fukki fan ak ben te amna fa fukki fan kon nak ci benu di diggiw tabaski dal le señ bi aksi fofu ci darul manan fi maam na nekkon te fekk ñuko faron defaral ay kër wala tasal bu laaj han hali walis mirum ba ibrahima te mooy ibrahim faati haza mile huwa moom allasi mooy ka nga xam ne taraka bàyyi woon na a cheikhu sëriñ bi alax yàlla njaboot ga wal amtihata ak yére ya biyadihi ci loxoom ayyaama xaybatihi ci fani tukkeem ba fajtama xatte daje alayhi ci moom asxaabu cheikhi dongay sëriñ bi ahlul xalli ñadi ñoñ fecci wal xaqdi ak fas yar isuhum dana leen jiite a cheikhu ahmad ndumbe cheikh ahmad ndumbe xabaan waxuma moom allësi mooy ka nga xam ne kaana nekkoon na yazhabu di dem wa yati muy dikk wa yu nabbihu te muy yee alwasnaana aji nelaw ja muy aji gëmmentu ja wa aqaama te mu taxawal xiraata awlaadi cheikhi njàngum doomi sëriñ bi xataa xafiso ba ñu mokkal في مدة تأبدير قليلة بأجنيو قبل رجوع الشيخ تنجك دل سكسرين بي لم ينخرم خط شيء درا من أمر الشيخ تنبرم سرين بي يضرب دنا الدوري ما نام دنا دفع بيه تمام تيرنو الناس نتني مثلا أولي في الاستقامة تي أجوب مثلا مثال ولا example fil istiqaamati ci jub wa sallaate mu jullee moom sëriñ bi alxiida jullit tabaski ga xunaalika wa baqiyate mu des xalaa xaalihi ca mbiram ma wa tarbiyatihi ak tarbiyaam ga wa amruhu te mbiram ma wa jamaaxatuhu ak mbooloom ma fawqamaa nekk na ci kaw la nga xam ne kaana amoon na bi ab xaafin ci ab ful maanaam ci ay duubal wala ci ay yokk mubaaxafatin yu di ñu ful wal masaaxifu te kaamil ya tuqra def na leen jàng fi nahaari ci bëccëg bi nabari ci xool wa fi leyli ci guddi xam zahri gaybin walis ak tari wal xasaidu xasaid ya it kazalika naka noonee la wa tadrisul ilmi ak jàngale xam-xam ba wa xidmatu ahlil xidmati ak liggéeyub ñooñ liggéey ga